dëkk bi du dëkk bi du dox kon li ngay wax nii mooy ni kon ñoom du ñu xaar parce que ñu bëri ñu ngi jàpp ni bu paree ca palais de la république ba président Macky Sall jébbal ko yëf yi mooy ni daañu xam kan mooy premier ministre bi yaa ngi léegi benn ci journaux di wax nii du génn ca Casamance suñ ko waxee sama xel dafay dem ci Cheikh Tidiane Dièye ndax am nga une idée. Cheikh Tidiane Dièye faut au début j'écartais l'hypothèse Ousmane Sonko mais je ne l'écarte plus d'après les dernières informations que. ah je di dis sa euh, que ce serait lui je ne dis pas parce que <laughs> l'autre l'autre jour on a l'autre jour on coupé mes propos ici yóbbu ko feneen di ko di ko di ko di ko sanfaraaj wax ni man maa waxtaanee man maa ni dañoo dañoo paasante réew mi xaw ma <laughs> tu vois des fois dañuy déglu mais du ñu dégg mm-hmm. et c'est dommage et ñu jël ma yóbbu ma ci benn chaîne di ma ngawti ngawtee foofu ni man maa wax dañoo paasante réew mi alors que j'ai jamais dit ça damaa ni waxtaane nañ waaw waxtaane nañu réew ba mën a dem ci élection parce que loolu fa falee fale mu jaar ci waxtaan. Hmm. bi ñuy waxtaanee waxtaanee nañu réew mi ba Macky Sall nangoo dem élection. Mhm. bu nangoo dem élection ci la consacré victoire opposition parce que moom il avait xamoon na ne bu ñu demee élection opposition bi day gagné moo taxoon moo lànk ni du dem élection cooli cooli loolu la il avait les chiffres et il savait que Amadou Ba ne pouvait pas gagner qu'il allait être laminé au premier tour moi les chiffres venant des études de sondage euh, de cabinet yi xamante ni Europe la nekk donné Bassirou Diomaye Faye gagnant au premier avec 56 pour cent Macky moo tax mu reporté suñu élection donc bi ñuy xëccoo xëccoo ba communauté internationale bi def pression ba mu xam ne lii mënu cee mënatu cee mënatu mënatu cee dellu ginnaaw. Hmm. ci la teg waxtaan xam ni dafa war a waxtaan. mu fi mu fi sës pour ñu dem élection pour passer pouvoir bi. loolu mooy passante bi. mais pas pas comme nii dañoo na résultat yi génn ci indi yi du ay non non. xam na ni mu demee résultat day. xam nga bu amee élection lañ koy dañ koy gën euh, Ousmane Sonko premier ministre. waaw non yi ma am. c'est pas une thèse à écarter. Ah. c'est pas une thèse à écarter maintenant nag euh, il faut savoir que cette semaine quand même euh, Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko une autre personnalité ñoo xamante ni ñoo nekk Hotei Azalaï ñu ngi waxtaane li nga xamante ni mooy jëm ci eh, li nga xamante ni mooy gouvernement bu bees bi c'est c'est un cercle vraiment très très très très restreint euh, ñoo fi doon waxtaan et puis euh, mu jëm ci li nga xamante ni moo moo war a tabb ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a àndal pour pour liggéey. Hmm. Euh, te pour man semaine bi incha allah dinañ ci dinañ ci xam dara. tey wala suba. bon tey mun na doon tey mun na doon suba <laughs> mun na doon ginnaaw suba on sait pas mais en tout cas composition gouvernement bi moom semaine bii di ñëw. Euh, dinañ ci am dinañ ci am dinañ lu ñu dinañ ci am lu ñu leer. Mhm. maintenant nag il faut pas écarter l' option faut plus écarter l' option. Euh, Ousmane Sonko premier ministre. <laughs> Ousmane Sonko premier ministre pourquoi pas. mën na nekk de c'est fort possible de. ah parce la boo xamante ne gars yi en tout cas ñu ngi ko koy ñu ngi ko koy attribué depuis très très longtemps. depuis que mu ngi nekk mais moytu Bassirou Diomaye ñuy leen tamit de xam nga Ousmane nag c'est quelqu'un boo xam ne moom boo ko séentoo noor rek. moom ma nga sud waaw il est très imprévisible voilà je sais que moom moom en tout cas ce qui est sûr c'est que Bassirou Diomaye Faye ne va pas gouverner seul ce pays là. Mm-hmm. qui sera accompagné de Ousmane Sonko qui soit dans le gouvernement ou pas dans tous les cas xam naa ne loxoom dina nekk bu baax ci doxalin bi wane na ko d'ailleurs euh, exemple bu bu njëkk bi mooy bi muy njëkk dem palais le fait que Ousmane nekk ci ginnaaw en ba pare yor ah, agenda ba <laughs> aywa ba ba mu gàddoo cartable ba laa ne ah, ah. signe la woon laa ne sama waa ji dafa mel ni dafa mel ni kon kayit loolu signe bu mag la da doon dañu waraale sax Macky Sall ne ko kii waaye ba tey jàppal ne maa ngi ci biir ba léegi dafa am dafa am dafa am solo parce que le projet là bien sûr quand on parle du projet c'est Ousmane Sonko c'est Ousmane en réalité ouais Ousmane moo indi Bassirou Diomaye au pouvoir mhm. te écarter Ousmane du pouvoir loolu dafay c'est même pas intelligent dafay doon xawal dool mel sax injustice en fin mhm. parce que tous les combats qu'il a menés li mu daj ci combat bi yëpp pour vraiment que le projet de PASTEF aboutisse au palais. Mm -hmm. euh, il pourrait quand même euh, man gis naa ni mën na occuper le poste de premier donte au début je pensais qu'il fallait qu'il s'écarte euh, pour laisser Bassirou Faye euh, mais état xam nga dafa doy waar. Hmm. le système n'a pas encore renoncé au pouvoir. waaw. ndax nga wax loolu. non le système n'a pas encore renoncé c'est trop facile en fait que le système renonce tombe comme ça. mais mais pourtant même sax le le président Sall l'a ci communiqué bi mu def. ak euh, waa APR. <laughs> wax na leen ne leen pare leen pour ngeen taxaw def opposition. ça c'est le volet politique. waaw je parle du système en tant que vraiment lobby. lobby boo xam ne mi ngi fi. Mhm. toog mu a infiltrer li nga xamante ni mooy nguur gu bees bi. nee mhm. nañ sax boo xasee. waaw ah, non loolu moom loolu moom loolu moom président régime non doo mën a def doo mën a dindi. tant ñoom nanguwuñu. c'est un lobby à des niveaux insoupçonnés. waaw c'est ça. te. mais na nag de ay Ousmane dina bàyyi Bassirou Diomaye Faye rek. Mhm. mu affronter ko affronter loolu. tu parce que c'est tout un système en fait. c'est un système qui est là c'est pas Macky Sall. 64 ans day c'est pas Macky Sall et son mhm. système qui est là et dont il faut se débarrasser. on a on a comme. coupé ses pieds. ah kon coupé wuñ tête bi non non bi tête est trop facile. ay non on a coupé les pieds léegi fu mu toll nii c' est un géant boo xamante ni dafa à genoux mais il faut l'achever mais yëggagul à il faut l'achever et pour l'achever il faut vraiment teg politique yi te pour teg politique yi il faut vraiment faut vraiment on a vraiment pas besoin on a vraiment besoin d'un duo de choc à la tête de l'État. Hmm. yoo xamante ni vraiment lépp orage bu bépp orage bu ñëw. mun nañu ko Ousmane serait vraiment un bouclier parfait pour Bassirou Diomaye Faye parce que le mhm. premier ministre c'est lui qui exécute mhm. la politique du chef de l'État lépp luy ñëw ci kawam lay dal mhm. c'est le fusible parfait lépp luy ñëw ci kaw fekkoon Ousmane dans la dans la dans l'option où Ousmane est premier ministre lépp luy ñëw ci moom lay moom moo koy àngu c'est lui qui va s'expliquer à l'Assemblée nationale c'est lui qui va vraiment à euh, des fois sur le terrain c'est lui qui descend médias yi bu ñu amee dara lu ñuy wax moom la ñuy waxal Bassirou Diomaye Faye il est en haut il est il est par moment inaccessible tu vois donc lépp loo xamante ne am nañ ko di ko jokkalante. peut-être Ousmane agenda moom mooy exécuté fii moom mooy wax ki def leen nii ministre tel def nii nii nii ministre yi moom la ñuy rendre compte tu vois donc il a certains pouvoirs et le président est protégé donc comme c'est Bassirou Diomaye c'est son protégé naturel. Hmm. donc il va vraiment euh, jouer le parfait. du protecteur nga xamante ni c'est lui qui va exécuter toutes les politiques du président de la République bépp critique boo xamante ni am nañ pour def ko ci Ousmane la ñuy njëkkee balaa ñu yegg ci Bassirou yu su ma la déggee mooy ni booy wax lobby yi ni euh, dagg gunu bopp bi mooy ni si mise en œuvre bi léegu-léeg bu yéexee mën nañoo trouver explication bi ci ñooñu ci lànk gi nu ñuy mel dañuy wax ni peut-être. déedéet da nga naan ko ndax ndax ndax lobby ya Cheikh Omar Diagne doon wax naan euh, balaa Diomaye di dugg ci pali bi nanu ko raxas ba mu laab ñu wàccee kaamil def yooyu yooyu la wala waaw ah, kay yooyu la wala les lobby les lobbies man les lobbies dont je parle ne sont pas des lobbies internationaux d'abord c'est des lobbies nationaux xam ñu ngi fii ci réew bi ñi ñu njëkk faagaagal ci suñu réew lañ nekk xamante ni système bi ñu ngi ci ba léegi dañu boo boo déggee le véritable système mhm. c'est des nationaux en fait c'est des hommes d'affaires c'est des hommes religieux tu vois euh, c'est des hommes puissants yoo xamante ni ñu ngi fi tenir ay leviers yoo xamante ni peut-être état agul foofu. ñoo nekk dans l'ombre am influence léeg sax ñooy. ñooy influer pour ñu fal diw. wala ñu bañ a fal diw ñoo jàpp fël assistant bi jàll ca ministre ba. am ay influence yoo xamante ni <laughs> ñoo yàgg a fal. parfois état bi du am parfois état bi du am doole ci gox. du am doole ci ci secteur yooyu. Mm-hmm. état bi nag moo war a récupérer waat doole bi mu am ci secteur yooyu ci lobby yooyu te balaa nga ko doon mën foog nga ñëw au destiné présider au destiné du pays comme président Bassirou Diomaye Faye ni mu koy defee tey. ne moom amul benn financement bu bàyyi ko ci lobby. voilà amul benn compte bu muy rendre benn religieux boo xam ne lobby laa yu mel noonu. Mhm. faagaagal pour faagaagal mais xeex la boo xamante ni. Hmm. c'est une c'est une bataille de longue haleine. cest du doon benn jour du doon ñaari du doon deux ans. ci juróomi at yëpp. ci juróomi at yëpp da ngay parce que eh. seen intérêt moo ci nekk. Mhm. tu vois seen intérêt moo ci nekk foog nga topp leen ba ñu sës. kon da nga bëgg wax ne mën nañ sax. c'est vraiment à des c'est vraiment ni ñu koy waxtaanee nii. peut-être c'est banal mais c'est à des niveaux insoupçonnés. insoupçonnés mhm. effectivement da nga jàpp ne mën nañu même infiltrer ce nouveau gouvernement. ah oui profil yi nga jàpp ne déggoo man la déggoo mel ni ñoom dugg mel ni ku jaxase. déggoo man la ils n'ont jamais renoncé au pouvoir. ils sont à la fois partout et nulle part. oui ils jamais renoncé au pouvoir ils étaient même ils étaient même dans l'opposition <laughs> uh-huh. ils n'ont jamais renoncé au pouvoir en fait ils sont partout donc il faudra vraiment être très très très très vigilant ci ci ci xeex boobu noonu et Poba foog mu am approbation. Hmm. Euh, surtout population yi. ci xeex boobu muy xeex ñi nga xamante ni ñoo taxaw fag ni ñoom li nga xamante ni ñëpp moom la ñu bokk ñoom rek ñoo ko yelloo. ak seen i nit. donc comme ñoom li ñu woote gouvernement bu bees bi régime bu bees bi mooy li ñëpp bokk ku ne jot ci sa wàll. donc <laughs> jot na population oui parce que parce que li nga wax li koy dëggal mooy yàgg ngaa dégg naan président Macky Sall joxe mhm. nga des fois mu ñëw ci moom mu ne ah man lii pourtant joxoon naa jàpp diw waaw nii nii du mujj fenn tu vois dema ci ministre diw du mujj fenn dem ba sax ay DG yoo xam ne sax dañuy tenir tête ay parce que day am parce que am na fu ñu leen téye parce que am na leen téye am na fu leen téye bu ñu la téyewul ci diw téye nañ la ci eh, nàngam eh. yaa may dégg lobby yi encore une fois ils n'ont pas renoncé au pouvoir le système n'a pas renoncé au pouvoir le système n'a pas renoncé au pouvoir euh, il faut être vigilant te pour être vigilant vraiment il faut une équipe de choc gouvernement bi foog ñu am ay nit yu nit de valeur yu intègre yoo xam ne amuñu benn intérêt ci lii nga xamante ni moom la ñuy def hmm. des hommes désintéressés yoo xamante ni politique ñoru leen d' abord. Mm. looloo tax dépolitisation bi am solo. am solo mm-hmm. parce que lobby yi ñoom seen lépp politique la. Mm-hmm. ci jeu d' diw mun nga am nangam ak nangam boo defee dara nangam ak nangam ak nangam. yooyu ñoom seen lépp loolu la te loolu pour daaneel ko yombul encore une fois bu ñu yaakaar ni da nga daaneel pàcc Macky Sall Macky Sall c' est une partie infime. du mm. système mbiru bakkan juste.